الرحيم بالنبي رجيم وآله وصحبه النجوم بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول إله نبي وجات قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدري للمنتقى وجهت فندكار ذكرا به قد كبكب المكار للمجتبى وجار في سبينا قبل سنة يغلد في المدينة للمصطفى لدى كناكري للمصطفى الماء بلا مناكري ملك للمليك إلا داومي ما قد قال يا ليلى الرزاوي غما لله في في المرولي بما به يغبطني كل ولي إلى نبي وجهت إن بافلي قبل بما به أنا محفلي للمنتقى وجهت في كمل بسا ما خرك باني عبد بن عبسا سقالا ستان عند قلبا كوني خديم من كباني البلوى يسوق سرمدا لخير الله ترا ولا إله إلا له تواف كل من علي أنكرا عند الإله والنبي لن يشكرا إلى سواي كل من لم يحوني واللي سوى الله العلي المكون لوى لغيره كل من تكبر باق حباني بمضايا الكبراء إلى سواه ولغير المنتقى من لا يهيبني ويلقى مرتقى لغير ربه ولغير المنتجى ممن تحالم ربي سمائي أم الإفاس المانئي يغني عن المدافع لكل عبد حاجي يطلب خير أول نعم قد خام خير البشر قد خيار سمر لا شيء تكبري كالبدر وتنجمين أنت رفيق للجنان ajana mooy sunu makaan borom tubaay borom jinaan yaa xayra siirin muqimi kafaani allahu min asab fa innani axdimu bima sawa man zannani xayra xadimin mustawa fa innani axdimu bima sawa axdimu ila duxulil janna دار القرار والمنى والمنى من زنانه يكون أبدا مرديو بماك خدمتي بدا فقر الضلال والإدلال ينقاد لي منه بالحلال مدات خبل لنا لمرلي مدحا وانا عن مثلي كل ولي مدات ولا ما ينبى مها عيوبه وكفاني ذنبا مدات عند اناس قلبا مدان كفاني العدا والبلوى مني اليه خدمه خذلا زمت روضته إلى القيام عظمات ردياني سبت الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني ردياني سبت أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن ردياني سبت تيجاني عليه رضوان المبيد الجانب ردي أني الخلفاء الأربعة حسرد المقربين المتبعات من لم يكن عني يرضى فالكريم ردي عني ردا ليس يريم جزى الإله المسوى خير جزاه كما تقبل ووعدا أنجزا صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المراء القاني لحاذ عبد الله خادم الرسول دنيا أخرى عصمة وخير رسول حاج القذايد قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا إذا كتبت دذ عرش البهاخي وسبحت ملائكة باخب lisaanu zikri wa sukri rawaqa lil arsi wal kursi nuuran waafaqa lubbi munawwarun bi nuuril wahiib waqaada lii xayral uluumil muhiib annahwu wal aruudu wal bayaanu lii sullibat bihaa walil iyaanu haraba min kitaabatil madhuur وبحروف تتغنى الحروف هرب من كتابة المدهور وبحروف تتغنى الحروف الله كامل مكمل سواه والكون كله وما هواه الله موجود بخير موجد فإنه موجد كل موجد لم يكن ذات لا يجل جرما فإنه جرما فابدو جرما فلم يكن ذات لا يجل جرما فإنه جرما فابدو جرما يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منئم قد أنما بك علينا وعدا من يعمى وكلما سقت إليه قالا لك بلا مسقة فانقالا مسلما عليك يا مختار واللي ساق كلما اختار دنيا أخرى بك سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الضمان لي كمان وكبأني سرمدا مالان وبك لي كان وساخ للعرب حتى سير بسر عجم وعرب ولمني إلى سياب الأمة وقاد لي بليس بن المنى وحتى ذنبي وعيوبي أمام وراذلي كل كنود جمها وجادلي بكوني ذا نظيبا لي وللأمة حيث قصبا وكفانا جملة الرذايا بي وذا خليبي المذايا fa innahu jalla ala zaaka xadir wa bil ijaabati duaa daain jadir xaatamtu bi sukri wassanaai isbika anni xat nabaanaai yaa man suaalu xayri dalaal is kunta li bi karamin yaa dal jalaal yallaahu yaa qariibu yaa mujiibu صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بالآل والصحب المذذ الظلام وكن لي الطير وكن معي وكن لي ذائقا فوق مرامي بكن وكن لي الطير وكن معي وكن lii zaayiqan fawqa maraami bikun wakun li yadara kun ma'i wakun lii zaayiqan fawqa maraami bikun subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin barke borom Tuubaa bisimilah bisimilah Baye Faali soxna jaara bisimilah ñu ngi fàttaliwaat rek li ñuy ñaan ñaanuñu ko ngir sunu jëmm dañ koy ñaan ngir sëñ Tuuba ak xasida yi ak bis bi ak ni mu toll ak ni fi daje kon lu ci waay am mu doy sëkk ku barkeelu te mu yam sëg bëgg sëriñ bi yàlla nay dolliku yàlla na la sëriñ bi bëttal ay teeni xéewal darajey xasida yi كباني سرمدا مراني وبك لي كان وساخ للعرب حتى سير بزر عجم وعرب ودمني إلى سياب الأمراء وقاد لي بلا سبيل المنى وحتى ذنبي وعيوبي أمهام ورادري كل كنود جمها وجاد لي بكوني ذنبي لي وللأمة حيث قصبا tey ni yàlla وسلم دائما أبدا فمن قفوه soxna jaara yi su ko defee ñu waajal waxtu wi defar sàpp yi

amiin hadihi ila yawmi diin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu nu santaatee sunu borom subhaanahu wa taala ci tawféex ji nga xam ni defal nanu ko ci liggéey bu sell bi nga xam ni xam ngeen ni diirub ci suba ba tey ñu ngi ko tàmbali muy bisu xasidab Kanzul Muhtadina xam ngeen ni ci suba ba léegi ñu ngi wéyal liggéey bi ci durus ak li nga xamante ni mooy njàngum kuréel ak njàngum rajas xam ngeen ni ni ñu tërale woon programme bi gis ngeen ni lu baree bari xëy na dem na waaye lu toll ci nag war a jooxe waxtaan wi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe wan te ren jii nu tànn sëriñ Moustapha Sall moom sëriñ Saliou Sow mu war a waxtaanee thème bu am solo bi nga xam ne moom lañu war a waxtaanee muy Serigne Touba ak xam-xam su ko defee xam ngeen ni waxtu wi xoj nanu waaye dañuy bëgg rek mu tënkal nu aslëf ci ñaar fukki minute ak juróom su ko defee sunu jànkati xaside yi ñoom it ñi ngi fi waxaat naa ko ci njëlbeen ga ñoom nit day dem day defee noo xam ni am na loo xam ne ñoom xam nañ ne ñoom ñoo ko moom bis bi seen bis la te it wóor na leen ni ku fi dikki rek sunu yéene mooy nga jàngal Serigne Touba xasida kon incha allah bu ci kanamee rek bu sëñ Fa daaneelee bu ko defee ñoom ñu daal di ñëw eggale li nga xamante ni moo des liggéey bi incha allahu taala kon kon ñu jox Serigne Moustapha moom Serigne Saliou Sow mu andi lu thème bi incha allahu taala jërëjëf. waaw ñuy sàkku ñaan ci ñi nga xamante ni rek ñoo wàcc liggéey am na mbokkum taalibe mu ñuy wax Baye Moustapha Kane soxnaam dafa wàcc liggéey moom it ñu ngi koy sàkkul ñaan li ko tàmbalee ci fatiha ak fukki xul walaahu ak benn te di ko salaatu ala nabi waaye di ko waale sunu yaari jàmbaar yooyu muy Serigne Cheikh Jëmb Fall waaye ak sëriñ Serigne Alhaji a Seck nga xam ne waxtu wi daf ko daan fekk ñoom ñëpp kon ñu yéene waale leen ci biir ñaan gi. fatiha ak fukki xulwa ak benn ak salaatu ala nabi kon sëriñ Moustapha bisimilah. waaw ak jëwriñ joo xam ne moom it bitim réew la nekka ne Italie sëriñ Modou Diop moom it ñu yéene waale ko ci ñaan gi waa kay jërëjëf.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 liyaftahan abwaaba xikmatika yaa fattaahu fathan xad yuqillu misliya yaa barru yaa alimu yaa munawiru xalbiya nawir aw orama yu busaru barke borom tuba doole Cheikh Ibra Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoob lislaam te di leen siyaara di santaat sunu borom bu baax ci daje bi ñu daje ngir jàng alquran ak xasida lépp ngir jëmmi borom Tuubaa suñu borom taw fi xalinu ñu mën cee jëf dara ndax damay wax ne bisi mel nii ku ci suñu borom taw fi xale saw ñaq tàbbi ci wala nga ñaq ci war ngaa rafet njort war ngaa santaat yàlla ni ko sëñ ko sa waxee dañoo tànnoon thème bu am solo muy sëriñ Touba ak xam-xam Serigne Touba ak xam-xam nag thème la bu yaatu boo xam ne xam naa dañ ci tënk li mënta ñàkk waaye tem la bu yaatu boo xam ne xam naa bu waxtu wi yaatu woon sax du tax mu mën a mat waaye dañ ci indi rek li mënta ñàkk ba jamono gën a yaatu incha allahu taala mbokk yi xam ngeen ne sëriñ bi ni ko sëñ Bass Khelcom waxee ne sëñ Touba day jëmm joo xam ne dundam gépp daf koo xaaj ñaari xaaj benn xaaj bi mu jeexal ko ci laa ilaha illallah benn xaaj bi mu jeexal ko ci muhammadun rasulullah loolu lay wax ne lahul tazamtu ba ilmin naafici wa kaana lii bi anfail manaafici man Sëñ Tuubaa dama warlul yàlla warlul yeneent bi warlul bindeef yi sama dund gépp maa ngi koy paase ci foo xam-xam buy jariñ nekk dinaa ko jéqi indil ko sama waxeet ñu jariñoo ko sëriñ bi loolu yóbbu ko ci bi mu ñëwee jamono mu jaar fi borom xam-xam yépp di jaar ci jàng xam-xam te kat bu ko sooboon du ca jaar ndax wax na ne xafiztu ma xam la qabla nuzulihi kaza tartilu alquran ji yàlla wàcce laataa mu ko wàcce laa ko mokkaloon mën sëñ tubaa te nii mu toftaloo noonu la toftaloo woon kon kooku bu ñëwee fii ci jamono di liifantu ak alif ak baa da ko soob waaye ba muy ñëw ci jamono fekk na ko mokkal alquran mu ñëw jaar ci loxoy borom xam yu mag bokk na ca noonu ñooñu sëriñ Mbuso bi tafsir Mbàkke Ndumbe sëriñ Sàmba Tukulóor Ka ak sëñ Mor Anta Sali mi nga xam ne mooy waajuram jaar ci borom xam-xam yu mag ñu jàngal ko xam-xamub zahir bii mu jàng ko ni ci borom xam-xam yépp jaare waaye loolu teewut sëriñ bi am xam-xam bi ñu wax al ilmul abni muy xam-xam bi nga xam ne nekku ci te moo tax mu bind wax ne ilmi ya ilmun laa yura fil kutubi sama xam-xam man sëñ tubaa xam-xam la boo xam ne kenn du ko fekk ci ay téere te sëñ tubaa lu mu la wax ne la nekkul ciy téere boo demee ciy téere doo ko ca fekk sëriñ bi teel a bëgg lu baax teel a xemmem lu baax boo demee ci Cheikh Amadou Lamine daga na day nettali ne sëñ Touba ku teel a bëgg lu baax la ku teel a siiw la daal di wax ne sëñ Mor Anta Sali daan nañu waxtaan ci pàkki suuf yépp naan sëñ Mor Anta am na doom joo xam ne ku bëgg lu baax la ku teela am xam-xam la ku teel a sàmm la Cheikh Amadou Bachir wax ne sëñ Touba bi mu tollee ci ak raw li ñuy wax ak tu ku teel a bëgg lu baax la ba mës naa dégg sëñ Mor Anta Sali di waxtaan ak ay ganam bay wax naan min da bi saalihiina qiyaamul bi bokk na ci aadee gaa ñu baax ñi bu guddi jotee dañuy taxaw di julli ba fajar nee na booba sëriñ bi xamut lu ñu jublu ci julli ba fajar taxaw ba fajar waaye day taxaw ba ay tànkam métti mu daal di dellu daal di tëddaat booba soxna jaara nee na daana làmb lal bi bu du daj sëñ bi bu xoolee tàllamp bi day gis ne sëriñ bi moo ngi ci sajaada bi booba mu ngi toll ci raw waaye mu ngi bëgg lu baax te loolu boo demee ci xasida yi di nga fekk mu waxal ko boppam wax ne walam azal munzu aqaltu taliba maarifatan billahi jalla taiba fa jultu bayna ulama wa awliya bi wa amali wa qawliya kay laa yadia umuri itaaba bi husni zannin qaada lihtisaaba xattan saraftu ama ay sachin ila xidmati xayril alamina zil ila sëñ tubaa nee na man sëñ tubaa ba ma ameem xel ba fi may wax ak yéen mosumaa denc fu ma dégg na ne lii day jariñ ma sóobu ca def ca sama pëstéef def ci sama yitte fu ma dégg boroom xam-xam ma dem def sama yitte siyaare ji ko fu ma dégg ku ñoon ab wàllu yu la ma def sama yitte dem siyaare ji ko nee na ba ama jeey si suñu borom tijjil ma yoonu géej gi ma dem liggéey ñëwaat am ma yi nga xam ne moom laa am sëñ Tuubaa waxaat yi ne wa mimma mën na mën na laahu alayya badra waxta taallumi hubbil bayadin bokk na ci li ma suñu borom tawfiqale waxtu wa may jàng damaa bëggoon ay naar ngir séentu gi ñuy séentu ci ñoom xam-xam waaye séentu gi ñuy séentu ci ñoom derub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu yoroon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne bis daa ànd ak salmaanul faris yi salmaanul faris yi ab perse la woon boo xam ne dafa bàyyi woon ay mbokkam te ci famille royale la bokkoon di wër yénent bi sallallahu alayhi wa ba jàppoon nañu ko jàmm ngir bëgg gu mu bëgg yonent bi rek mu nekk Madina di fa xaar yonent bi di fa xaar ba yonent bi ñëw mu jébbalu ànd ak moom ba yenent bi mujj ne salmaanu minna ahlal bayti salmaan léegi ci ci waa ahlal bayti la bokk salmaan yenent bi daa jàpp ci loxoom bis ne ko salmaan mbaa jamono du dox ba nga bañ mu ne ko naka laa lay bañee yow mi ma gën a bëgg ci mbindeef yi yaa ma jaral ma bàyyi sama ndey bàyyi sama baay bàyyi askan wa ma bokk àdduna du dox ba ma gën laa bañ ci di dund ci jamono sëñ Tuba yenent bi raw la mën naa koo nangu ndax nit du tànn jamono ja muy juddoo waaye di dund ci jamono borom tubaay dund ci jamono nga faatu te jëbbul woon nee na yaa torox sëñ ba jaxata feelu ko daan ne ka perte moo di ka bokk ak bamba mii jamono di dégg a kay gis ba xëy dee nag te jëbbaluwul sëñ ba jaxatee ko wax nee na ka perte moo di ka bokk ak bamba jamono di dégg kay gis ba xëy dee nag te jëbbaluwul te xam-xam boobu sëñ tubaay yemul ci sëñ moo jaw paxa sëñ moo jaw daa dégg ñuy tudd sëñ tubaa di tudd borom xam-xam mu ne leen loolu dafa ëpp ahmadu jaw jawwun wa taxta wa fawqahu sama wal ardu taxtal jaw yi laa taxta sama bala ngeen a laal sama waa ji borom tubaa kooku asamaan la man maay jaw ji bala nga àgg ci asamaan laalal jaw ba noppi yéen yéen a ngi ci suuf maay ahmadu jaw njëkk leen maa laal njëkk leen a laal jaw ji balaa ngeen a wax ak asamaan njëkkee leen ci man man ahmadu jaw paxa ba noppi daa di wax ah man maay malikun nuxaati wal luxawiin man ahmadu jaw paxa am ko ñëw ci moom di di bàkku naan ko man sërif mu ne ko limal say maam mu commencé lim lim bi gudd lool mu ne ko dafa gudd taxawal mu taxaw mu ne ko ahmadou Diop paxa ahmadou bamba rasulullahi yee gën a gaaw sëñ bay jaxate feelu ko ne ko sëriñ bi nag moo nu jur yónneen ba jur ko bu wér sunu cër yi fa ko wér noo jub te jufu naaw sëriñ bi nag moo nu jur yónneen ba jur ko bu wér sunu cër yi fa ko wér noo jub te jufu naaw naaru gànnaar ba waxoon sëñ tubaa ne ko wa in addal kiraamu lahum juduudu bi yawmil faqri kaana abuka taaha abuka shamailan wa abuka shar'a fa nahjul asbahi lisa lawlaaka taaha yow sëñ Tuubaa bu yowmal qiyaamee jaam ñépp ku nekk naan yenent bee sama maam ku nekk di wooy maamam yow yenent bi yow dong lay nangu nga doon sëtam ndax ngiram mi bi mu naree dugg ci kàmb yow dong yaa taxaw génne ko ca kàmb ga ñii naan ay sëtam kenn defu ko ci loolu ab naara ko wax te sëtu sëtu bi yenent bi la moo ko wax sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa yitte woo woon xam-xam foo nekk sëñ Tuubaa jënd ko sëñ tubaa daraan nit daraan ñëw ci moom indi téere mu jënd ko ci yow nga xëy même téere bi nit ñëwaat di ko jaay sëñ tubaa jëndaat ko nga xam ne xam-xam ci boppam ku bëgg a ñëw ci sëñ tubaa doo dellu loxoy kese indil téere jaay ko sëñ tubaa bi muy dem gànnaar sëñ tubaa benn téere topp ko amul benn téere boo xam ne sëñ tubaa yóbbaale na ko gànnaar téere xam-xam daa am ci taalibe ku ne ko mbàkke sa téere yi dadul demam mu ne ko téere yi du dem liy andi téere laa yóbbaale gànnaar liy andi téere waa ji déggul ko sëñ tubaa wax am kuñ ne daa mën a bind mu ñëw sëñ Tuubaa yëkkati gaalu gi yëre jox ko yëkkati xaalis bu bari jox ko xam nga naarub gànnaar daa bëgg xaalis kooku daal di dem lam am ci téere lépp mu sotti ko ñëw andil sëñ Tuubaa gàdd yëpp mu war ko téere fa nekk yëpp mu sotti andi sëñ Tuubaa yàggu dara sëñ Tuubaa xajatu fi mu nekk ndax téere yi mu ne nañ takk geneen xayma dugal ca téere yi ba mujj xay téere yi daa bari bañ bañ wutal ko xayma boppam sëñ Tuubaa woowoon kooku ne ko lii laa wax lii andi téere laa indaale moo tax andi moobu téere ilmu ilmul arabi muy luqa luqatu luqatu ilmul luqa muy muy muy xam-xam bi nga xam ne moo lay jàngal boo tiimee alxuraan mën a xam li muy wax sëñ dafa am bis am ku koy laaj lu tax sonne woo ko fekk sëriñ na waaye sëñ bi da ko tont ne ko kalaamul arabi tariqun wa quraanu qaryatun wa man wasala ila al qaryati fala yaxtaaju ila tariq dane ko alquran ab dëkk la langue arabe yoon wuy jëm ci dëkk ba la waa ku yeewoo ca dëkk ba looy doyee aw yoon man ca dëkk ba laay yeewoo man ca dëkk balaa laay yeewoo moo tax doyewu ma dara ci yi ngeen di ngeen koy doyee te kat li ñu wax loo al luxal arabiya sëñ Tuubaa ko gën a dégg ñëpp ki ñuy wax ibnu malik nga xam ne moo bind téere bii ci naxu muy junni bay sëñ Tuubaa dafa wax ne bis dafa yeewoo mag wax mag ñi ne leen ibnu malik moo ma dikkal bi si guddi bi mu ñëwee li ma wax mooy dafa yéemu ci sama benn bayit ni mu làmboo maanaam laa ilaha illallah muhammadu rasulullah da cee yéemu ba ñëw di man ndokkeel man sañ Tuubaa te te Ibnu Ibnu boroom borom xam-xam yi nax wi yëpp moom la ñu gën a naw moom daa naw boroom Tuubaa ba ñëw di ko siyaar si wajutal bi tamkiini war rusuuqi waqutta lii mawaahiba suyuuqi wirasatan min ka ilayya lil jinaan wali siwaaye yantahi dayqu zaman daane sëñ Tuubaa suñu borom may na ma may góor yàlla yi yëpp man sëñ Tuubaa dajale naa ko yore Cheikh Ibrahima Diop almashar yi ne sëñ Tuubaa fa an xayri xalqillaahi yarwi xadiisahu wa yaxusu anhu lil ulumi saniyati xusu anhu min bahril ulumi tariyaha wala tartadu anhu luhumal qadidati fama waraqatu daaqilina safinatan bi muxniyatin anhum bu ayda safinati sëñ Ibrahima Diop almashar yi nee na sëñ Tuubaa da ngay gis kuy nettali naan la diw nee na diw nee na ko diw nee na ko mu jëlee ci Buxaari yi mu jëlee ci muslim sëñ Tuubaa ne Cheikh Ibrahima Diop almashar yi nee na sëñ Tuubaa du jëlee ci Buxaari du jëlee ci muslim yenent bi ci boppam mii ndeyu mbill gi moo koy wax mu ñuy wax yenent bi ci boppam moo naan sëñ tubaa dama sañ sëñ tubaa naan ko mane mu xëy mu xëy di ñu ko nekk li daan ne jël leen ci jën yu bees yii sëñ tubaa yore te bàyyi géejug daaw gi ngeen di dundee daal ne jël leen ci yàpp wata boor wii sëñ tubaa di dundee te bàyyi ci sëñ tubaa yore te ngeen bàyyi muusal bi ngeen di dundee moom Cheikh Ibrahima defal na soxla daal ne li lay xamal ne booy dundandoo ak borom tubaa lii borom tubaa indi mooy li valable nee na ni mu la koy misaale mooy yow mi dugg ab biis ñu jox la nga dagg ticket bi ngay ñëw bi ngay dellu ne doo daggaat ticket ne ne ticket bi nga yoroon ci ngay ñibbi nee na di jamono borom Tuubaa ba noppi di topp keneen noonu la mel nee na dugub dugub biis jëndub ticket bëgg cee dem bëgg cee dikkaat nee na jamono teg borom Tuubaa ba noppi di déglu keneen noonu la mel ki ñu wax am Abdullahi Salim ab naar la bokk na ci ñuy seedee xam-xamub sëñ Tuubaa day xool sañ Tuubaa ba yàgg nekk ci kër gi addee day ñëw ñu ne Cheikh Modou Moustapha ko indi mu ne Cheikh Modou Moustapha lu mu doon ci sëñ Tuubaa ñu ne ko doomam la mu ne kon sax ay taalibe lañ ne ko waaw ñu toog ba yàgg àddiyee Cheikh Massamba ñëw mu laajte Cheikh Massamba lu mu doon ci moom ñu ne ko rakk la ci sëñ bi te day joxe àddiyee ñu toog ba yàgg àddiyee borom daarul moo te ñëw ay saakoy dugub yu ñu bay mu laajte lu mu doon ci sëñ bi ñu ne ko rakk la ci moom mu ne kii ndekete rakk ak jàmbureeyam ci moom ñépp koy liggéeyal xaaral ma jug liggéeyali ko jël xalimaam ne sëñ Tuubaa ahmada inna la nauddu lakum misla walam nastaqim lawla tariqatuka al musla yow sëñ Tuubaa ñun de dofuñu balay sàkkal maas dofuñu balay sàkkal morom te xam nañ ne bu du ak yow ci guddi la ñuy dëkk duñu xam bëccëg nu mel bu du toon ak yow lu naqari la ñuy dëkkee duñu xam lu neex nu mel wala taabatil bushra wala azzaman zulla nee ko booba bu du toon ak yow baadoo la ci baadoo la lay faatoo baadoo la du xam teraangay dund daan na ko tadallaata min ilmi shariati nashaan fa lamma an istawabtaha al aqla wa naqla takannafaka al waasuuna min kulli wijhatin waraamu lakum xetlan fa zallu bikum xetla daan na ko yow sëñ Tuubaa bi nga tollee ci jàng xam-xam dangaa fes dell ak xam-xam jaam ñëpp jug nag añaanee la ko bëgg laa rey waaye bañ la bëggee rey daa mel ne la ñu bëggoon a def sa soppe ba la ndax sa soppe ba jéem nañ koo rey waaye dara sottiwu ca rasulul lazi fawqa samawati arshuhu wa tahta sara wal farsi sultaanuhu jalla loolu day mel ne day dëppook waxi sañ bay jaxate jami wax naan ko ma gàddu bu wér man baj géwél sama ndënd mii te kañ nag borom tuubaa ki xëy boole ñépp daan ba fooree ki kaañ ak ñépp ne jàng fii jariñ mu seexal ku jàngul aw xaraf ñu ne moo fi daal ba buuri tuba ba buuri wolof ne lii nu yor ku ci bañ du wéy mu faf teggi leen ak seeni yëf ñu bokk ne moo fi daal ba wàllu yàlla yi ne bunti yàlla yi ñoo ko yor mu faf dox fu kenn foogul ñu bokk ne moo fi daal ba ba ba buuri tubaab it ne ñu mos waa ñoo ci des mu yëm mu ne gar fi yëpp dem ñu bokk ne moo fi daal mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu njibbi këram ndaanaana ngoogu lu yàgg daal naar bi ñuy wax Cheikh Mahamadul Fadal dafa tagg sëñ bi wax ko ne ko an nahwu wal lughatu inda al arabi wal juudu was saqaa'u inda al kurabi chiimatuhum fa jaahum zurrutabi ahmada bamba man ala birrutabi najli habibillahi zut addubi fa salabal jamia aya salabi minhum fa saaru maahu kalqusubi illa ashratu nabiil anjabi ahmada bamba yaa aqa taxarrubi afa yaxillu laka zulmul arabi bi axzi naxwihim wa axzi l adabi wa axzi juudihim bi xayri bi xayri wadabi yaa ajaban min saalihin muhazabi yazlimu ahla al ilmi ahla al asabi wa maa zulmihi li baadi l arabi naala min annabiyi kulla arabi daa wax sëñ Tuubaa ne ko yow Ahmadou Bamba yow mi nga xam ne yaay borom ndoxandeemu gi yow dëkkoo ci réew yi bokkoo ci naar yi waaye da ñëw fi naar yi gën a nekk point fort naar yi nga ñëw gañe leen fa muy annahu wala arudu wal bayaanu lii sulibat wali biha ayaanu daan na ko naxu ak arud ak bayaan yow sëñ tubaa dangaa ñëw mën ci naar yépp waaye sëñ tubaa moom bu ñuy wax wàllum xam-xam da cee soññ ab taalibeem bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ba Cheikh Awa Balla Gaye day faral di wax ne ab sénégalais yenn saa yi day tiim lu weex mu leer ko ne lii lu weex la waaye benn waaye jóge fee ne ko lii weexut daa ñuul nee mu dofe topp ko ca gëm ne lii daa ñuul nee na mooy dañ gëm gëmloo ñëpp ne murid yi di te bis bu nekk ñuy gis murid yi di defi conférence bis bu nekk ngay dem ci collège yi di dajeek ñoom di dem ci université di dajeek ñoom nee na xanaa loo dofe dofe dofe nga war a xam ne ñii nag am na fu ñu jàngee xanaa xëy ñu xëy rek di toog ci collège yeeg di toog defi conférence kon xam naa dañuy yem foofu daal di jàll ci mos ans ci xasida yi xasaay di sëñ tubaa moom li ma ciy wax waxtu wu nekk damay wax ne xasaay di sëñ tubaa yi bu sëñ tubaa yoroon logique gu tubaab baadoo la du jàng xasida bu sëñ tubaa yoroon logique gu tubaab baadoo la du laal xasida ndax fi mu ne iPhone bii huit cent mille ak nangam lay jar mën nga cee jënd ñaari écran plat te pourtant écran plat moo ëpp iPhone foofu waaye tubaab bi logique am mooy lii moo ëpp njariñ lii moo gën a lix lii laa ko la koy jaay xoolal xasida yi sëñ Tuubaa li muy li muy def ci nit yemut ak yow àdduna wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaaliin li wajhi rabbi wa bi kalaami ya wa bil ishaara ihdi muridan yatlubul inaara yow yàlla sama xasida yi ku koy jàng leeralal ab xolam sellal ko yow suñu borom defal ci moom ak leer ba mu mujj baax baax koo xam ne ndeyam ak baayam du ñu xam kañ la baax ay mbokkam du ñu xam kañ la baax dañuy xëy na gis ko mu commencé soppiku di am yu muy jombale boppam yoo xam ne daawu ko jomb te ndeyam yàgg na ko koo wax waaye taxul mu ba ko baayam yàgg na ko koo wax waaye taxul mu ba ko te kenn du ñëw naan ko bàyyi ko waaye day xëy rek jombale ko boppam bu rombee ñu koy def sax du la nuyu loola xasidaa koy def ci yow te yemut ak yow fii day dem ba àll àjjana Sëñ Tuubaa daa mës a woo mag ñi ñu ñëw mën a leen ku ne na nga indi xasida gi nga am te bu kenn indi xasida gu moom mag ñi daal di indi seeni xasida sëñ bi jàll ko ci romb jaan di ko romb ba yàgg mu ne leen dama leen a bëgg a wax fi xasida yi di mujj ak yéen xasida yi bu ñu demee ba yow ma ba ba ba képp ku koy jàng te di ko toppatoo ak di ko xeeñal gët fii ci àdduna bu ñu demee ba xasi ba nga faatu xasida yi day soppiku jëmm ju rafet toog ci sa bàmmeel di la fa xaar boo ñëwee xasida yi dalay wéttali ci sa bàmmeel te wéetaayu bàmmeel ñu bari moom lañu ragal sëñ tubaa sëñ sàmbay day wax naan guddi gi njëkk ci bàmmeel ku ko doon xalaat lu la neex defal waaye sëñ tubaa nee na kuy jàng xasida guddi googu xasida gi day soppiku jëmm ju rafet toog ci sa bàmmeel di la fa wéttali yow yow yow yow muy jàng xasida nee na dina fa wéttali ba ñu of buftu bi fa ñuy dem di taxawalee buftu ba sëñ sàmbay nee na ñu bari bu ñu yeewoo du ñu am seen jëf ju baax lu mat aw waruwaay wu ñu war mu yóbbu leen ca pénc ma am na fukki nit yoo xam ne dañuy toggale seen jëf doog a am gëléem nga xam ne dañ koy war ba ca geen ga sëñ Tuubaa nee na képp kuy jàng xasida bu bis boobaa xasida yi jëmm lay soppi ko joo xam ne day mel ne aw fas wala waruwaay wa gën a taaru nga wa ca mu yóbbu ba fa ñu taxaw la bis pénc ba bëri na ñoo xam ne bu ñu demee ba bis pénc bu ñuy layoo dañuy tiit ba la ñuy wax sax duñ ko xam bu ñu layoo dañ leen di yey tàbb leen sawar sëñ tubaa nee na boo naree wax xasida yi moo naan la noppil ma layul la xasida yi mooy layu ba yey ànd ak yow tàbb laa jël bu fekkee lii li ko mën ci yow ñu ne la jaalibatul maraaxi bi 1000 francs lay jar xam nga ne jarut 1000 francs ndax luy jar 1000 francs mënta yóbbu nit àjjana kon xasida yi ku doon bu doon sëñ tubaa logique tubaab la yor benn baadoo la dug duñ ko jaar du laal xasida ndax luy jar 1000 francs mën laa defar ba nga jag mën laa tabal àjjana jaawartu billaay nee na boo ko mokkalee boo duggee ci bàmmeel mun garang nakir du la laaj te boo amee fukki dërëm ñu jaay la ko xasida goo xam ne boo ko amee boo koy jàng say noon bis buñ xëyee di faatu say noon duñ mën ci yow dara nga di ko jënde ñaar téeméeri dërëm loola te boo demoon ci sëriñ si di ko defarlu ñu lay laaj deux cent mille ak trois cent mille war ngaa xam ne fay goo xasida àqam sëñ tubaa xasida yi daf cee soppandiku sopp soppandiku goo xam ne kenn mësta gis ku jëlee xam-xamu bu arut di ko soppandiku noonu ko Sëñ Tuubaa di soppandiku ndax dafa ñëw fekk ñu ko jiitu xam naa foofu lañuy ñuy muy Hasan ibnu Sabitin Kaab ibnu Malikin Abdullahi ibnu Rawaxata Sëñ Tuubaa ñëw fekk la ñu jiitu ko ci lef mi waaye rëyite Sëñ Tuubaa rëyite ñun ñi sëñ koso doo déggee benn murit bu taxaw ci baas ne ñaanal leen ma damaa bëgg mel na sëñ Moussa Ka xam dañ ne boo ko waxee ren ba déwén dañ naan diw daa fa daa fannaaw waaye sëñ Moussa Ka mu mel na moom faat boo ne damaa bëgg mel na sëñ bay jaxata dañ naan da ngaa fanaaw waaye mënta nekk waaye sëñ tubaa daa ñëw fekk kat ña daan tagg yenent bi mu ne kaa boog xasaan laa bëgg a raw kooku itam kenn bëgg a mel na ñoom waaye daa dem ba boromam may ko mu romb leen wa fi madhihi jaawastu kaaban wa xasaana laqad billaahi wahdahu xadiman li xayril xalqi xattan ka xasaani léegi maag xasaan ibnu saabit ñoo yem ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ tubaa di tagg yenent bi di tagg yonent bi di ko tagg di ko tagg ba mujj sëñ Tuubaa nee na bu ma jëlee sama xalima sëpp ci daaj gi yonent bi day ñëw jël bëti woomam sëkk ci samay bëti woom di reetaan ma koy tagg mata marextu rasulallahi sayidana muhammadan man bihi shaytaanu qad xaraja dana ilayya dunuwan xad usarru bihi bi fadli rabbin bihi lbahrayni qad maraja ba ma koy tagg day ñëw jàkkaarloog man di bëgg sëñ Tuubaa mujj bu jëlee bi bëgg a bind saafara bu sëppee xalima gi yonent bi teew mu resetee bind lu dul tagg ko mujj mu ne bu ma kenn bind loo ti saafara ndax du tas yaakaaram sëñ bi di tagg yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba mujj yenent bi wax ko ne ko Seydina Jibril moo wax ak moom ci bayit bi ci muqaddimaat ne ko ayaa xaadimal muxtaari laa tan sa tansa sahbahu fa man yansahum fal maduhu maduhun muqattaw yow yenent yow sëñ Tuubaa bul fàtte saxaabaam yi ndax boo taggee yenent bi ba tagg wa jeex te tuddoo saxaaba yi daa mel ne defoo dara sëñ Tuubaa wëlbati abu bakrin siddiqu zu siddiqa wal wafa rafiqu nabiyil mustafa al gara an baw abu xafsin il faruqu sharwaahu naadirun bihi ataza diinul mustafa isu zazaw afi sahbi man dahab na afana zalhaya lahu nuuru summa nuuru niamal mubawiu abu sibtayil muxtaari wa huwa bnu ammihi aliyun ala faqira niamal mujarrab sëñ tubaa di leen tagg waaye dane loolu doyut yenente bi ne ko ana luy doy sëñ tubaa nekk ci tukkib géej gi nasaraan si di ko lor di indi góor ak jigéen ñuy sëy ci kanamu sëriñ bi ngir naqarale ko ko naarab gànnaar bi sëñ tubaa nettali tukki bi moo ko bind sëñ tubaa ko ko nettali bàyyam mu bind ko nee na tubaa ne ko tubaab yi àggoon nañ bay jouer pornographie ci kanamu sëñ ngir naqaral tubaab yi àggoon nañu ci buñ buñ naanee sàngara ñëw di ko buusu sëñ tubaa ngir naqaral tubaab yi àggoon nañu ci di tux cigarette di ko buusu saxaar si ngir naqaral ko waaye muy muñ rek jàmbaar gi di muñ rek ba tey mu am lii mu am sëñ tubaa nee na ma nekk ci néeg tubaab yi di ma naqaral ma dégg ci gannaaw néeg bi koo xam ne mu ngi xaqataay nga xam ne mu ngi ci jàmm ma xëy sama yaram fasu ma ne yow yenent bi sallallahu alayhi wa maa ngi nii aw ma jënd yitte lu dul liggéeyal la xoolal kooku ci sama gannaaw moo ngi am wér gi yaram bay bay xaqataay man mi lay liggéeyal aw ma wér gi yaram tawat ji te yóbbu ko ci ka nga xam ne ma nga lay bokkaale man mi la kennal nga bàyyi ma ma na fi saasa ñu dégg waajee onk sëñ tubaa am jàmm te kooku ab soldaar la kooku ab soldaar la li borom tubaab di tegoo bañ ko tegee soldaar ba daa onk yuuxu ca kaw sëñ ji li mbàckeem sañ ko sa soxaay bu nett li na ma nee ma dafa am jëmm ju sant kebe joo xam ne dafa mës a ñëw ci sëñ tubaa ne ko tawat ju métti jii di la dal coono bu métti bii ngay tegoo damaa bëgg nga di ma nga wàññil ma ci ma tegoon la ko sëñ tubaa ne ko ndax àttan nga ko mu ne ko attan naa ko sëñ tubaa ne ko dellul sa dëkk nee na bi fajar jotee daa yuuxu ba waa këram ak taalibeem yépp dégg ko mu yuuxu ca kaw bi mu di daanu ay rab bañ ko ci sëñ tubaa sëñ Tuubaa daan ne moo ne moom day lu toll ne pepp zara lañ ko ci teg mu yuuxu te lim ci àttan kenn àttanu ko ci te li muy tegoo waxuma la ab soldaar waaye koo ko teg dinañ dëgg kàddoom ca kaw te da koy tegoo da ngeen di wéy te tawatul balaa yaa suuratul laa la am ci laaya moom sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa di tagg yenent bi di tagg yenent bi ba mujj mu jël ay kër yi ajjana di ko jox àddiyee saxaaba yi ndax dafa laaj boromam ne ko yow suñu borom wax nga ne bépp jullit këram ajjanaam bu ca naree dem danañ ko won kërug safaraam ne ko boo jaamuwutoon yàlla di nga dem fii ci mooy safara képp ku nar a dem sawara danañ la woon sa kërug ajjana ne boo jaamu woon yàlla fii nga nar a dem Sëñ Tuubaa laaj boroomam ne ko léegi yéefar yi nga xam ne dañoo nar a dem sawara seen këri ajjana yi anamu mu ne ko day gént mu ne ko damaa bëgg nga may ma ko Sëñ Tuubaa jël kër yépp daan yenent bi daan na bi dama koy jox àddiya saxaaba yi ataytu sahbahu manazila manazila la daa jannatihi mu tayyaban lil xalada inni jaaltuha hadaya li sihaab radiya anhum man xamaani an sahaab këri àjjana la sëñ tubaa jël di ko jox addiyee sahaaba yi ma na ko am pëseefu jël këri àjjana di ko joxe foo jëlee kër yooyu joxe addiya lay jafe te sëñ Tuubaa lijjanti na ko ba jox ko rek këri àjjana sahaaba yi kon borom Tuubaa ngir tënk borom xam-xam yi ñuy tudd ci àdduna ñu di boroomi xam-xam kenn ku ci ba toll sëñ Tuubaa ci wëq amul ndax li ñu xam sëñ Tuubaa da koo dajale ba noppi làq xam-xam xam ne kenn ci ñoom xamu ko ndax borom ko xamal almu ladu ni bu fekkee xasiday borom tubaa yii xam-xam bu bari boobu sëñ tubaa am moo ko may sëñ tubaa xasida mi li tax mu yéeme ma ñaanee foofu sëñ koso bépp borom xam-xam buy bind dangaa toog di bind ba noppi di xool yàlla nangu na ko wala yàlla nanguwu ko sëñ tubaa xas xalima gi xalima gi dafa am daraja xilaami alayha daynu iqdaami mursalin sama xalima gi dafa jàpp na day fay bor xale kuy fay bor booy def doo ànd ak sago xay xaraatiis yi wajaxal xaraatiis yi bii wa xalami xayra ibadatin wa xayra sullami sëñ tubaa nee na waxuma laa xasida yi waaye kayit yi may bindee xasida yi kayit yi dong jàmm yàlla gi gën a kawe mooy kayit yi may bindee xasida yi bu fekkee daaji daaji sëñ tubaa di bindee nee na maa umidaa di kadima i shuhada li xasawaati man bi fawzi shahida nee na daaji may bindee xasida yi mook ña doon xare badar seen dereti fas seen der seen deret yi ñoo tolloo te sëñ Sambay nee na seen fuuritu gémmiñ faf ya buñ ko peese woon ak jëfi wàll yi kaamil da koy wat kon xasida yi sëñ Tuubaa yii yëpp la boole nag moom mii bind xasida yi darajay boppam doog a ñëw lii tax xasida yi am maqaame mi mu am am daraja ji mu am te lu jaam mën a jëf ci xasida ak wesar ak lu mën a doon jaamu yàlla goo mën a def sëñ Tuubaa nee na dafa am jëmm ju mës a siyaar si sëñ tubaa bi boobu Alaaji Malik moo leen yebal leen na ngeen jaar ci borom Tuubaa nuyul ma ko siyaaral ma bi ñëwee am ca mbooloo ma ku ne sëñ Tuubaa ba gannaaw ba ma doxee yóbbante ak alaaji Malik si ba nopp ba tey ma wax la sama waxi bopp doon na ma naqari lool ma dund ba faatu te teguma la bët sëñ Tuubaa ne ko boo amoon man lay gën a naqari nee na mu daan ne ko sëñ Tuubaa daal di woolu ci jàngkati xasida yi nee nañ yëkkati xasida ak minal lawhil mahfuz ñu koy yëkkati min nii li man lahul wujudu wal qidam hamdun wa shukrun wa taqabbalal qidam nafaa zul baqaa'i wal muxaalafa ala abda zal qadima la muxaalafa ba xasida gi daal sëñ Tuubaa woo mag ñi ñu daje mu ne leen dama leen a bëgg xamal tey li dox sama xasida xasida gaa ñu baax ñi ngeen daan dégg daan leen ku ngeen fi mënti dégg muy taalif xasida bu waxee ci suñu borom ba noppi suñu borom day jóor jëf ji nii daal di woo ñeenti noon yi nga xam ne mooy nasadu muy nafsu seytaan hawa dunia daan na leen jël leen lu ngeen am ci jëf ji yenn saa yi nafsu ak seytaane ñëw jël seen cër ci jëf ji mu jeex takk bu jeexee yàlla du la fay ndax joxoo ko ba mu lay jox yenn saa yi ñu jël mu des aw desit tey nee na yàlla du laal aw desit sëñ Tuubaa nee man may kenn ki nga xam ne bu ma taalifee ba ñu jóor ko yàlla bu wooyee ñeent noon yi benn noon boo xam ne am na cër ci sama jëf amul sëñ Tuubaa nee na bu ma yëkkatee sama xalima seytaane day daw isa katabtu farra iblisu bila waqfin wala yuraali durri muqbila kon saytaane moom muuram jeex na ci mbirum sëñ Tuubaa mu des xawaa sëñ Tuubaa nee na xawaa nantahaa lil xaqi wal xaqu diinu naa bi iqdaami zi rusdin hada kulla murshadi man sama bànneex amul jotug balaak bay def bàkkaar ndax dama ko jël tàppe kook yàlla benn yoon mu jeex tàkk bu fekkee dunya sëñ Tuubaa ne aqbalati dunya ilayya qablu wa bi'tuha fa zala anni al-qablu wa ba'dahu anni adbarat walam amil laha li kawniha daara zulam wa ba'dahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abqa manni kon kooku benn bakkanam wala dara am luy yàq amut amut amut amut amut amut amut fenn fu muy jaar ba yàqal ba yàqal sëñ Tuubaa kon sëriñ bi li tax ay xasidaam gàmm waxut ñuy jàng xasiday kenn dane xasiday boppam la ñuy jàng ndax li liñ naan jigéen moo la mën a wax ki jur doomam waaye xasida ki ko bind dong la mën a wax daa sell sëñ Tuubaa nag nee na ay xasidaam daa sell nañ ko jàng guddi gam kon ñoo ngi tuubaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yéen a jëppoon na lii waaye ni ma ko waxee rek sëñ Koso day sunu wëllëre di sunu lépp te damay wax ne barab bii moom dama fee bokk ndax samay baay a fi nekk ñun suñ baay Aliou Diop ñoom bàyyi Yirim Aw ñoom ñëpp samay baay lañu te ñu fonk ma ba ma yëg ko di ma ba ma di ma teg loxo ba ma yëg ko waxtu fu nu fu nu dajee damay yëg na ñu may teg loxo lañ ba ma yëg ko ci sama jëm bokk noonu la demee ci sëñ koso noonu la demee ci mbokk taalibe yépp maa ngi tuubaat bu baax a baax a baax a baax seen doom képp lañu lu nu waxit ak lu nu defit ngir bëgg leen a sagal dong la waaye du xam-xam bu bari du du du ju kawe du dara ngir bëgg leen a sagal dong ak lépp lu ñu def ngeen xam ne ci seenu tur lañu ko defee ñoo ngi tubaat bu baax a baax a baax a baax lépp lu ngeen dégg ci kàddu yi ci njuumte bu nga ko sëf kenn man nii maa ko def doomu adama képp laa doomu adama dey jum malaaka yi la yàlla wax ne laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaroon te man bokk ma ci malaaka yi ci nit yi képp laa bokk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Moustapha Sow sant nañ bu baax a baax te lii mooy wane ni yaakaar naa baay àlliw xolam sedd na da wax ni jëggaane gi nañ ko bàyyi ndax jox koo xam ni danga koy woo jël sa teraangay alal jox ko mu lekk sab ceeb ba pare ñëw xas la da daan wax ne loolu waras na ko moytu loolu kon wane na ni kon bu nu yeewuwul it ñu ngi waaja a yeewu sëñ Moussa jërëjëf yow da bokk sunu biir ñun ñëpp ñu ngi ñaanal sa waajur wa suñu borom yokk ay leeram te taas na ci barkeem te nga sut ko aw fan macha allah kon li ñuy wax no comment dafa naa ne waxtaan wi leer na nañ eh, ni ma leen ko xaman rek bàyyi liyu murid yaa ngi nii liggéey baa ngi nii ma bàyyi la rek kon nga sof ci ay kàddu ndax niñ koy waxee waxtu wu nekk bàyyi liyu na nga yëg ni murid yi ni ñuy dajee di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi di ñaanal sëriñ am satu moom sëriñ Chouaib bu mu yàgg fi noonu la ñuy dajee di ñaan nga yàgg fi ngir ni ab sag nga ci mboolem murit yi yaakaar sëñ Touba rawatina nun ñi nga xam ne ñun la sëñ Muntaxa wax ni nooy ëllu xasida kon ñi nga lay ñaanal sunu borom wéral la yàggal la fi te dafa la tawféex Cheikh Moustapha jërëjëf sant nañ la bu baax a baax gërëm la ñaanal la sunu borom dafa la jàmm defe naa gamat bi bu ngeen gisee ni mu taaroo wax ji ma waxan léegi di ngeen ko daal di gëm ñii ñoo moom yëf yi moo tax lu mu guddi guddeet faw ñoom xam nañ ne bis bi ñoo ko moom bu kenn jàngee yóbbaale na ca des ñëpp waaye dañoo fas yéene ñëpp jàng ñu door yëkkati jotaay bi kon Baye Aliou bisimilah te it Baye Aliou ma lay seereel jëf ji am na ci jànkati xasida yi ñoo xam ni bis bii defuñu ko bis boo xam ne dañuy ñëw rek di fekk si déedéet dañuy jël seen alal di fi def di indi seen i xéewal di fi indi ba pare toog di durus xasida ba waxtu bi te boo leen jox boo leen bëggee sax jox ñu jàng mu ne tee jox diw ndax man ci laa bokk loolu nag mooy xam li la Serigne tuubaa defal nga di ko yëg ba nga xamante ne yëg gi nga koy yëg yow ci ngay yëgee ni bu ñu doon recruter ahlul xasida yow ci ngay bokk looloo ñu ngi la koy seereel bu baax a baax euh, Serigne euh, Mourtada Fall fi mu doon jàppee dafa fàtte ay lonetam ku ko gisee nga dimbali ko mooy ay ay gëtam mu jàppale ko ngir Serigne Touba maanaam soppe yi nga xam ne mooy soppe Cheikh Modou Fadal ñoom it di ab association suba dañoo am fii am ndaje ci kër Serigne Touba gi. sëriñ Babacar Diouf mi ne ci kër sëñ Touba di ko jekkal garab yeeg yooyu ab saagam dafa réer moo carte d'identité ñi ngi ci képp ko gis na ko ci jàppale ak carte IPRES am kon mi ngi noonu Baye Aliou bisimilah. bismillahi rahmaani rahim. barkeb borom Tuubaa barkeb mbootum xasida yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki murid yi ñu ngi leen du nuyu di leen ziara kàddu gi du gudd kàddug sant rek la ñoo ngi santaat sëriñ bi bu wér te di leen ko seeraloo kiy wàcce kàddoom di sëriñ Moustapha saw te ñu gën koo min ci sëriñ Moustapha Saalihu saw di doom ci sëriñ Saalihu Sow di kenn ci ñun waaye jarul sax ñu yegg ci sëriñ Saalihu Sow mën naa di sama doom ndax baayam di sama wëlëre wu yàgg woo xam ne yoon wi mu njëkk a ñëw Ndakaaru man la fi fekk si woon mën naa ne waxtaan wi mu fi njëkk a def sama kër la ko defe moom ak Bouchra Samb loolu yàgg na waaye mustafaa li ma booleek moom du xam ne Saliou sama xarit la déedéet Moustapha Serigne Touba lay xeeñtu ba tàbbi ci samay loxo bokk ak sama njaboot ci biir sunu jaxasoo nag ci la xam sama digg ak baayam kon su toogee fii wax fi wax yi mu wax ci sëriñ bi loolu war na maa gën a sant sëñ Tuubaa baayam ci sant gi ndax baayam bi rek la bëggoon daa am góor gu jënd saakoob ceeb saret bi wàcce ko mu war koo dugal ci biir kër gi mu woo doom ji ne ko saako bi laa bëgguma dugg ci kër gi doom ji jàpp yëkkati baay bi jàpp mënta jóg doom ñu ne ko ay bàyyi yëkka yëkkatil mu ne ko yëkkati naa de mu ne ko ah, yëkkatiwul kay ndax yow fi nga yëkkati jógul mu ne ko damaa nekk foofu nekk fii moo tax damaa nekk foofu nekk fii ndax yow mi yëkkati ci man nga bàyyi koo moo tax lay jóg foofa ci man la damaa ne foofu nekk fii moo tax du jar may wax ndax Moustapha bi mu waxee rek maa wax te li wax mën naa ko engagé ndax duma ma kenn ci xam-xam bu bari déedéet duma ma engagé kenn ci dégg ay arab ndax aw làkk rek la man dégg arab ak dégg tukkulóor yem ci man aw làkk rek la man li may nawe nit mooy gëm sëñ tubaa ak yéene ko li ko yàlla defal yoon woowu ku ma fa gisul bu ma la soxlaa dama lay gestu waaye mënoon na ci sama kanam kon Moustapha jërëjëf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 kon fii ak dégg ko ñun la eey rek doxal te xam ne yaa ngi ci yoon wi te yaa ngi ci yoon wi yàlla na ngeen yegg ak jàmm waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. daa mel ni sëñ Balla yéen da ngeen waroon a ñëwe nii. waaw ne maanaam sax kay ñiy gis di leen gis waaw fi mu ne xanaa xamu leen ne lawoon ci gis sëñ Bamba mi ngi ci gis jàngkat xasida yi wallahi alazim mi ngi ci sëriñ Tuubaa ko wax de kulla saidin xatraha qasaidi bi lentixaajin faase bil asaidi waxi sëñ Bamba la sëñ Bamba moo ko wax waxul jàng xatraha la wax gis te jàngkatu xasida boo gis boo ko xamee boo ko xamul gis nga xasida gis nga xasida de boo jàppee jàpp nga xasida boo bàyyee bàyyi nga xasida jàng yéen ñi ñëpp ay xasida ay xasida ngeen ndax fi mu ne boo dee jàng jaalibatal maraaxib def ko muy sa wax xaf bis bu ne nga di ko jàng te góorgóorloo ba mokkal ko lu ngeen yàgg-yàgg dangay ànd ak jaali bët waaye dëkku leen bala ngaa xam ne dangeen di ànd nga xëy fàtte ko sa kër dem fu jaali bët amut keroog doo jàng ku bëgg de ko xasida da nga koy mokkal boo ko xasee mokkal ndox ak suukar la ak soow boole naan baaboor ak tul te yéen ñii ñëpp ku ci ne ak xasida ngi sa dënn wala ay xasida kon tax wàccuwaayu xasida ngeen ci sëriñ bee waxoon ne kulla saidin xatraha xasaidi bi lantixaadin faasa bi lansaidi kon saa boo gisee jàngkatu xasida ca xool ko bëtub cofeel ak bëtub fonkeel jële ci loolee sëñ Tuubaa waxoon waaleykum salaam wa rahmatullah wa inni ya unsuha bika wa duriyataha min asaytaani rajim rabbi a'uuzu bika min amazaati sayaatini wa a'uuzu bika rabbi an yahduruni bismillahi arrahmani arrahim sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman li naazimi ajil abyaati yuxaatibu man laa taaxusu sinatun wala nawmun wa kaana lahu wa tayabal lahu lyaqazata wa naama yaa zal wujuudi walbaxaai walxidam yaa zal muxaalafati xusumin ilxidam yaa zal wujuudi walbaxaai walxidam يا ذا المخالفة خصم الخدم يا ذا القيام أبدا والوعد يا من خطابي إليه وعد إنك ذو القدرة والإرادة والحلم والحياة والإبادة وسمي والبصر والكلام يا مائيا بالمنتقى آلامي إنك خادر مريد عالم حي سميع زازع المظالم أنت بصير المتكلم الجذب لي كتابه المجيد فانجذب لك بلا تراء نسيا يا من كفاني ظلم النسي لك بلا مراء السلبي يا من كفاني ظلم الخلبي لك بلا شريك المعاني والمعنوية بلا معاني yaa faailan bi iznihi yajril xadar li xayri ahmadi kaza suqutal kadar bi jaayi ahmadal karimil alamin yaa man bihi alamta ma lam yulamin yaa za wujudin wa baqaa'in wa xidam lilati wal kursi qusin xidam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 ولم يزل برابي شكوري رفعني الرابع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لو سكوري بلا كفران وسانني بالليل والجيران يسون عن كل هذا الفئات مغني اليد بهكذا أناتي إذا تلوت آية فرلين لغير ذاتي ويسود المعين لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تبليس أيس مني اللهين والخلاء ربي بمن كتابتي تنمي ولا كتابتي فاقت يوق تربيه وكل خير وسيوخ درخيا ردت كتابتي بإذن الله لخير ناوي كل جان الله مدلي الأكرم تيسيرا يفوق خلي وإن بالله جاري ربي الخائل فإنما يسرناه بلسانك تيسيرا لم يسبق إلى مثله ولو لم سكر أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم من أنباء الغيب همسس منايا عدم باق لا يزال عادما بنا عدو لا يزال نادما مد لي الكريم فيها سورا فضلا عزيما منه جاء منصورا سعادتي في اللوز الأرس الأرس بدت بلا معين وآياتي عادت saadati fi lawisil arsi badat bila mi ayn wa ayati sakarani inda jami jundi musqasado siyaarati min indi madaliyal karim madam sasi maalil jinaani xaadani min anzati